bi nga xam ni sëriñ Touba moo seexaloon seen maam di ziyaar di nuyu bu baax a baax a baax sunu mbokk ci yépp quatrièmement fi fi mbir yi tollu benn laaj rek laa la bëgg laaj mooy lan nga jàpp ndax da jàpp ndam li dès le premier tour wala day am aar Sénégal lan la ñuy jiital ma ni leen li ñuy jiital mooy dog jéng yi te mel na ne jéng yi dog na dog jéng yi teewaat suñu souveraineté ci suñu loxo moom la ñu moom ñu sukkandiku ci wekk ko ni ñu ko wara wege sukkandiku ci pour tabax suñu réew علم وعمل والله سيد xam ak jëfe ko ci la ñu war pour defar li ñu war a defar lépp loolu moo tax projet bi nga xam ni muy projet université bi sëriñ Muntaxa naal ñu ngi ñaan suñu borom kenn bañ ñu cee man ndax boo tabax société boo xam ni léppi lor dafay jóge léppi réer dafay jóge léppi njàqare dafay jóge da nga ci daara ju ñuy waajale xam-xam ak jëfe xam-xam yuusu bil mustafa boo ko tabaxal madrasa muy jàng xam-xam muy mu ne ma bi ñu constaté énergie bi ñu constaté ci ndaw ñi ak seen pas ndax dañuy continuer di ko bàyyi muy dem ci désert bi walla ci géej gi wala dañu koy canaliser tabaxe ko